Siri waaye si la ne yéen a ngi si jàmm dama leen di gis chaque soirée dama leen di gis ngeen sañse mm-hmm. ngeen indi seen seeni seen i gang mm-hmm. waaw kay léegi lan ngeen sekk ak Sidi man chaque jour ma leen gis soirée dama leen xàmmee mm-hmm. lan ngeen sekk ak Sidi bon ñu ngi nuyu ñëpp di ah. ziar ñëpp di ah. nuyu leen jox seen wàccuwaay lii waral nag à chaque fois nga ñu gis soirée di euh, loo xamante ni la ànd bu ñu nag moom la kóllëre la bum ñu ji ak baax bum ñu wan yëg-yëg bum ñu wan faale gi ak safoo bi looloo waral à chaque fois ñuy dagg suñu yitte di ñëw di ko fekk si waaw ah, ah mu mel ne ah, da ngeen da ngeen ko da soo déggee Sidi Sidi Diop yenn saa yi day bëri kii ñii dañ koy xas ah amul kóllëre mm-hmm. amul kii amul warkat lu lan lan lay def si yéen lan lay de si yéen. Ah, ko xam nañ ah. ah. noonu moom. maanaam mënul ñàkk ci moom. Mm-hmm. parce que moo ëppee nekk artiste. Mm-hmm. bu demoon nekk leneen. Mm-hmm. kenn du ko tudd mais moo nekk artiste dañ koy tudd. waaw loolu la mais gars yi dañ naan ay tontu Sidy warul tontu Sidy ku ko xas mu woo la lu ne da nga koy da nga koy da koy dégg keroog si affaire Mame Ndiaye gis nga direct bi mu dugg rek lu ne dégg na ko si. xam nga Sénégal. Mm. Euh, ñi nga baax ñu jàppee la dof baa nga oyof am yëg-yëg yëg ñii nii ñu jàppee la dof Sidy nag dafa lu dul devoir am en tant que artiste en tant que sénégalais bu ko neexoon fuy bu ko neexoon beew bu ko neexoon yëg fixé mais loolu yëpp def ko ndax d'abord boo xoolee ci ñun ñi nga xamante ni rek tekki ñu dara jokati ay doom dong lañu te pourtant yëg nañu faale nañu safoo nañu bu ñu amee suñu bis da ci taq rip fu mu ñu fekk yëkkatiñu duñu suufel kon donc loolu ñu ngi ci sant di parce que artiste la mais tegul boppam fi yenn ñenn ñi ñu teg seen bopp franchement. ah ñun su ñun ñun journaliste yi ñuy jaaxal. dañuy jaaxal dañ naan est-ce que du moo sikk. ka moo sikk Sidy sikkul Sidy bu sikkoon chaque jour nga gis ko sur réseaux ah. ah. am adresse boobu maanaam di respecté wala nit ki loo xool ci moom rek ngay gis mhm. ñoom sikk lañ xool ci Sidi moom lañuy gis duñu mën a gis lu baax mhm. mais ñun ñoo xam ne jege nañ ko xam nañ mhm. mais nag duñu ah, mais mais euh, damay def occasion boobu am na foofu euh, ku ma laaj événement su Sidi su amee xam nga damay taxaw si buntu nekk Almadies di laaj nit ñi mais am na ñoo xamante dañuy yëkkati ay kàddu yoo xamante yu méttee métti ne Sidi yalla bu Zénith bi fess Zénith bi du fess la su ngeen déggee kaddu yoy nga xamantene dañ nan Sidi premier Zénith bo xamantene li moko wara ko li moko wara lii ma tek ne Sénégalais yëpp dañu wara japp jàpp diko di ñaanal mais lan mo y'a beaucoup de personnes yo xamantene dañ leen dañ leen dimbalé téléphone ñu ne Zénith bi du fess yalla bu mu fess lan mo sétal parce que Sidi du congolais du nigérien du guinéen. Ah. sénégalais la. boo xamante mu ngi liggéey réewam mu ngi jàppale di def yu xamante yo di def yu ay gestes yoo xamante ni wanewu ko doxewu ko jëfewu ko donc nag duñu yàlla duñu yonenti nag te yaakaar naa képp kuy sénégalais wala ngay sénégalais di yeewoo ci sénégal gi nii mhm. waroo def lu dul dooleel si di ñaanal ko mhm. si nitam benn incha mhm. allahu rabbi de day baax te day fees dell bu soobee yàlla yonenti baat Serigne Saliou ndax lan da koo tarbiyu loo xamante ni mérite la Sidy tëbul tëb rek ñëw fii ne day dem Zénith uh-huh. donc dañ koy ñaanal réussite totale uh-huh. réussite bi nga xamante ni da da koy bett da day yuuxu daal dina jëf fu ñu ko foogeewul daal uh-huh. di ko ñaanal gudd fan ak ba mu fekkee Zénith bi incha allahu rabbi ci jàmm ak salaam incha allah loolu la ñuy tëjee nag Mbaye. ñu ngi lay wax merci beaucoup. ci interview bi waaw loolu la ñu amoon wax daal jërëjëf. Sidi daal yal na ko yàlla defal jàmm ak salaam. mais lan ngay lan ngay président yaay président fan club wala. président fan club Sidi family. la ilaha illallah lan ngay tëjee si loolu. Sidi Sidi coow li bëri na si moom jamono ji de. Mbaye nga bàyyi golo yi ak fas yi ngay dégg sa micro ñuy wax ci Sidi. vraiment ah ñan la ñooñu. golo yi ak fas ñan la. ñooñu la ak gaynde yi bàyyi leen di leen ñooñu noonu ñooñu duñu wax mais ñooñu noonu mais nag dafa bëri ay golo bëri ay fas bëri ay gaynde waaw suñu bàyyi siidi mamaanaa xef ay mamaanaa pur dëgg la dëgg la ay nit yu ñaaw ñu rafetoon sax ñu ne waaw waaw vraiment vraiment bàyyi siidi siidi defu leen dara doomu dëkk bi siidi xale la dafa nekk ci yoon ah. tooñul kenn deful kenn lu ko naqari deful kenn lu naqari kenn yàlla ne ko jàmm sonal daal <laughs>